tey dañu dajé fi man ak sama natango ministre de la jeunesse ñi nga xamni ñoy ñooy co-présider comité permanent bi nga xamni ci biir conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes la bok ñu ci doon waxtaanee liggéey bi nu muy démé ci walu xeyu ndaw ñi de manière générale mais particulièrement ñu waxtaanee ci tey programme xeyu ndaw yi mi nga xamni président de la République moko taxawal may rafetlu bu baax li ma fi dégg parce que c'est la première fois ci Sénégal ñu am programme bu bu bu magee nii ci walu xeyu ndaw ñi ci walu tagat la et que bu ñu déggee tey structure yi nga xam ne ñoo ko yor ñoom ñëpp ñu présenté fi ñu toll li ñu def ak li ñu defagul euh, jàpp naa ne comme ni ko madame Lissou waxee dal na ci fi nga xam ne nii fa lañ teg suñu tànk ci jëm ci problème xëy ndoy parce que programme bi dañ koy jàpp ci ñaari pàcc principalement benn bi mooy recrutement ndaw ñi nga xam ne juróom benn fukki junni ak juróomi junni xale yoo xam ne dañ leen war a jox liggéey ñu defee euh, présentation bi léegi wax nañ ne ci daanaka juróom-ñeent fukki ndaw 90 pour cent jël nañ leen ci recrutement boobu li ci des ay ay 10 pour cent yoo xam ne ay réglages yu ndaw la yoo xam pour ñu egg ci beneen li beneen pilier yu am solo ci programme bi mooy wàllu formation ak wàllu financement euh, ñu waxtaan ci pôle yi yi nga xam ne nii département bu nekk am nañ pôle emploi entrepreneuriat euh, 3 pt bi nga xam ne ci benn la ci vecteur bi nga xam ne ñooy def formation wax nañ

ay financement yo xamni def nako ay xalé ci biir département sénégalais. mais c'est la même chose aussi pour euh, euh, pour euh, pour pour ADER. bi nga xamni mo yor walu financement bi momit jotna lu lu takku ci ay demande de financement jógee ci pôle biñ ko xeyma danaka tolna ci ñetti milliards mais li ci ëpp li ci am solo moy ñi nga xamni xalé yi xam dañuy laaj financement bu yées million ñu tuddee ko financement d'autonomisation donc lool yëpp boko xeyma bolé ci ak cellule d'écoute et de veille citoyenne bi nga xamni def nañ ko ci biir programme bi manam xalé yi yi ñu financé yi ñu financé wul ñu mëna jël sen sen sen sen sen feedback par rapport ak programme bi. Euh, ndaje mi bo gisee ñu woté ko tay euh, dafa am lo nga xamanteni président de la république dako koo euh, pour ndaw ñi depuis le mois d'avril avril muy conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. loolu boo gisee mu teg ko dafa fekk ni euh, président de la république dafa jël euh, li nga xamante ne ni mooy structure yu bari jagleel ko ay ndaw ñu bari di wax naan structure yi euh, daanaka ñoo yam li ñuy def en réalité boo xoolee ba ci biir yamuñu li ñuy def mission yi bokkul li ci xawoon a manqué te amoon na ci sax dañ koy renforcer mooy ñu def li ñuy wax synergie ak gën a ñoŋal li nga xamante ni moom la ñuy defandoo

Euh, ñu ko war ko exécuter ministère yu bari tamit séq ko tey nag loolu tamit def nañu li nga xamante ni moom nañu tuddee xayma bu bu bu ci ci ci genn wàll gi daal def nañu xayma boo xamante ni nii permettre nañu ñu am euh, li nga xamante ni ni mën nañ ko tuddee euh, du ma wax mbégte mais xel mën na dal xel mën na dal ci programme bi ndax ku ci nekk tey ci sa ministère wane nga fi nga ci toll te fi nga ci toll mucc na ayib